waaw salaamaaleykum man la aadama Ndiaye di maamu Fallou Ndiaye. Mm-hmm. waaw Adama ñu ngi lay nuyu ñuy wax ne rek yow yaay maamu Fallou Ndiaye. Mm-hmm. ne Fallou Ndiaye mooy xale bu ñu reyoon euh, fële ca Géejawaay Sam Notaire. waaw fekkoon ko ci kaw terrasse bi rendi ko. Mm-hmm. boobaa léegi nag mën na at euh, affaire yi fan la ci tollu fii. affaire yi moo tax tey sax ma ñëw fii ndax euh, rayu. Azizu barki démb bi daf ma fàttaliwaat lu ma lu ma metti muy deewu fàll boobu te ba léegi xaw ma ci dara waaw ba léegi maa ngi ci topp nag daw naa ci daw ci enquête bi ci ak lu mu mënti doon mais ba léegi leeraluñ ma ci dara waa enquête bi ñan ñoo ko yoroon. police bu Géejawaay ñoo ko yoroon. est-ce que boobu wax nañ la ci wala papa xale bi wax na la ci wala. waaw dem naa ay yoonu yoon police ba mais dañ naan ma mi ngi en cours loolu lañ may wax ba léegi nee nañ ma amaguñ ci dara loo xamee ne leer na leen wax dëgg yàlla. moom ban léegi biñ ko reyee léegi mat na un an parce que bi ñu tam xaritee ba ci lendemain ba lañ ko reyoon. a Wow, fallu dafa nekkoon xale boo xamee ne man maa ko yoroon depuis mu nekkee xale am benn semaine waaw la ko papaam jëloon yut ma ko moo yaayam. bi mu amee semaine nga wax. waaw bi mu juddoo ba am semaine. Mhm. la ko papaam indi woon sama kër yut ma ko mhm. ak yaayam ne ma dama bëgg comme sama sœur nga nga téyel ma ko. ndax comme këru famille la te xale la day door a am doom duma ko fa mun a bàyyi man maa yar xale bi fal man maa ko yar. xanaa la noonu ak nàmpal bi yooyu. sore nañu ndax moom mi ngi dëkk Géejawaay man maa ngi dëkk Kër Njaayloo kon sore nañu. kon waaw ba mu toll ni mu toll ba nu mu demee keroog tabaski ji kër papaam. boobu ñaata am. mi ngi am 4 Ah, kon ci mën la jóge dem kër papaam tabaski ji. waaw tabaski ji. ñibbi waatul. parce que yaayam dañu ko woon ne ko fa téye ba vacances yi passé parce que boobu yaayam mu ngi liggéey mu ne ko comme école tëj na te man ak sama yaay yëpp dañuy liggéey mu ne ko mën na nekk ci xale yi ndax mu gën a miinante ak ñoom loolu moo tax fàllu dem fa avant avant tabaski dafa njëkk a ñëw jël si ko dafa bëggoon mu taw mu korite si ak ñoom. kan moo dafa bëgg mu xamanteek ay doomam mu dem yóbbu ko mu am trois jours korite mu indiwaat ko waaw bi mu ko indiwaatee tabaski jot mu ne nañ ko indiwaat ñu defaat ko noonu mu demaat tabaski ci ba ci biñ tam xaritee ba ci suba sa lañ rey xale bi. waaw dañ ko rey. depuis boobu enquête bi bougé wul saa yoo demee ñu ne la mi ngi en waaw man nag de wax dëgg yàlla chaque jour damay paas dem géejawaay su ma demee presque fa laay yendu mais saa yu ma demee dañu naan ma ñi ngi ci ñi ngi ci ñi ngi ci mais musuñu ma wax dara lu ma leer wax dëgg yàlla. Mhm. kon dal Fall yow yaa ko yar peut ki nga yor une semaine. ba mu juddoo ci yaam une semaine nga yor moom quatre ans. Mhm. naka vidam manquement boobu naka lay def. naka la lay def metti ma rek motax ma diko jambat ndax te dina ay gudd yo ne nelaw ba dañ nan ma sax gëmal yalla deug la da ngay gëm yalla mi dafa metti ci ki nga nekkal ñu ne la ray nañ ko te xamoon nan lañ ko rayé mu metti lool ku nekk xamna na la dara daggé ba nga gañu rek nu muy mel ci yow waxantuma la xalé bo xamé ni nañ na am na ans ñu ne la dañ ko rendi jam ko ñetti jam jam dafa metti ba loolu dama koy imaginer diko dund sama bir xol ndax metti na ma yow ndax bi loolu amé après tégal nga bëtt fallu gis nga ko ci morgue wala ñu teural ko ñu ne la nanguwuñ ma ko wan nanguwuñ ma ko wan ndax premier jour biñ ma njëkkee war na fallu gañu na dima démé police ñoon ni ma ni duñ ko xol dañ ko jël yobbu ko sété wo biñ ko yobbo sété wo biñ ko indé ba ma ne dama ko bëgg a gis ku nekk naa ma yoruma caabi ji papaam laa njëkk a wax ne ko ne damaa bëgg a gis fàllu mu ni dafay nàcc soo demee doo ko mën a tiim am ku ne kum ne moo yor caabi ji ma wax kooku mun a yorul caabi ji damaa jékki-jékki rek leen gis leen ñu di ko jullee xam nga loolu mënatoo dem naan da ngay gis fàllu noonu la demee waaw. léegi nag yow lan ngay wax ci autorité yi parce que lan ngay ñaan pour ndax. li am ni barki démb Aziz Dabala bi ñu rey. waaw mu yëngalaat sama xol torop ndax dafa mel ni ne deewu fàllu moo ñëwaat ci man ndax deewu fàllu comme ni ñu de reyee Aziz bàyyi ko fa noonu lañ ko def rek dañ ko fekk ci appartement yenu ko yóbbu ko ci kaw terrasse rendi ko jam ko ñetti jam-jam mu nekk lu metti ci xale te ba léegi mënul am suivi kenn waxaatu ci biñ ci enquêté benn yoon foofu lañ ko dëxëñ denc ko ba léegi waxaatuñ ci dara loolu moo ma métti te dafa métti si xol. lay wax autorité parce que am nañ mm. ngay wax autorité yi li may li may wax autorité yi mooy ñu dimbali ma ndax soxla naa xam ki rey sama sët soxla naa ko waaw sama sët sama xarit soxla naa ko trop ba ci kanam mu nekkoon xale bu bu bëggaabal ñépp ko bëgg soo ko séenoon tey danga koy gàddu koñ ba ma dëkk moom moo tax ñu xam ma ku ma xam fi ma dëkk fàllu moo tax nga xam ma dëjëm nit ñi ba minuit dañu doon ñëw sama kër di ñëw ji ma xool te ñooñu xaw ma leen ndax fàllu moo ko waral mu nar a niil daaw ba ren kenn waxu ci kenn yeeyu ci yàbbi kenn newul ne fii la aw kenn newul faa jaabante naa pëlis ba sonn dama bëggoon rek ñu dimbali ma ndax bëgg naa ki rey sama sët ma xam ne kii la lu ci yoon def ma xam ne loolu la ci yoon def mais bëgg naa ko xam euh, euh, bëggoon xam rek waaw euh, kër gi mu nekk. papam ak jabar ji moo fa nekk ak xale yi wala amoon na ay locataires yi nekk ci kër waaw appartement la woon rek ay appartement la woon benn kër la woon amoon na ay appartement man musuma fa dem jour boobu laa fay door a teg sama tànk parce que bu mu jotee sama doom ñekki sama kër ñëwu fa yónneewu fa ba xale bi doy noonu mu doy dama ko mere woon. ah dafa jote woon ak sa doom. waaw mooy wàcc gi rek parce que sëyetuñu. ah woon. waaw. d'accord kon xale bi booba mi ngi sama kër ndax biñ naan ma moom bi may woo moom papaam naan ma Fallou dafa dee. Mhm. ma ne ko Fallou bu deewee dafa daanu ci balcon baa ñu fiir ko mais fàllu feebarul bay dee mu coupé ma ne ma ne avant mu may coupé daf na ma ne Fallou daal dee na rek dee na man xaw ma lan la mu daal di may coupé si laa jóg. dem yee sama doom fekk ko mu ngi nelaw ma ne ko nabu mu tëb ma ne ko nabu mu ne ma lan la booy xëy foo jaar nga yee ma ma ne ko kaay ne ma mbaa jàmm ma ne ko kaay rek ma ko toogal bi mu toogee ma ne ko ah diw de woote na fi nee na woon na la ba sonn jotu la léegi nee na ma fàllu dafa mujje noppaliku loolu la ma wax yaayam tëb fi taxu na ma loolu du dëgg ndax man fàllu dégg naa ko démb rek dégg naa ko ndax ay magam ñoo ma ko jox téléphone kon loolu mënul ne kon Fallou xanaa dafa wadd ci balcon bi walla leneen moo ko dal waaye fàllu feebarul bay dee après laa nes tuuti ma dugg sama néeg pour sol yére pour ñu mun a dem ci laa dégg sama benn jànq ndax moom it sëram ci kër googu lay sëy ci man lañ ne woon ma dégg mu naan dañ ko rey ci laa tëb génn néeg bi ma ne rey mu ne waaw diw nee na dañ ko rey ndax dañu fekk xale bi muy nelaw moom rek seen papa jëloon caabi caabi leen ci biir néeg ci biir appartement bi bi mu leen caabee nee na dafa amoon course bu mu demoon pour dem aéroport xaw ma seen je sais xaw ma léegi bi mu demee balaa moo ñëw fekk ñu ubbi buntu néeg bi ak caabi ñëw fekk xale bi fu muy nelawee ñu gàdd ko moom dong bàyyi fa ñeneen ñaari magam yóbbu ko ci kaw teraas bi daal di koy rendi daal di koy jam ñet jam-jam. kon legui li ma bëggoon xam euh, yow bi nga jotté Fallou mu nga un an ñaata at la am ak yaayam pour divorcer. fallo amul ak yaayam sax un an mu divorcer. mu divorcer waaw. parce que bima ko yoré dama topp papaam ñewal nga jël ci sa jabar ñewal nga jël ci sa jabar mu naan ma tay suba ëlëngoon ba yalla def mu bëggante keneen muy. tantam bi nga xamee ne moom la fàllu fekki woon ni muy bëgganteeg moom après si la ko wàcc bi mu wàccee yaayam hmm, ma wax ko sama ñoom yaay ñu ne ma yow xale nga mayoo ko ko woon comme moom ci ay kilifa la jaaroon bàyyil kilifa yooyu def seen rôle ba xam sëy bi nañ lay demee léegi bi bi bi que sama yaay sama yaay waxee loolu ñu wax loolu man ma bàyyi ba mu am quelque temps ay fan moom mu woote ne nijaayam mi ngi Espagne woo ko ne ko léegi xale bi damaa bëggoon nga jël ko mu dellu néegam wala nga xool nooy def waaw mu daan ne kon jéggal naa ko ci noon la bi mu ko jéggalee deux jours après troisième jour bi mu nekk jeudi si samedi bi la takk jabar waaw loolu laa ci am. kon kon bi ko papam jëlee tàntam la fekki ak ñeneen frère ak sœur ci biir appartement bi. non non sax fekkiwul sœur dafa fekki ñaari frère am ak tantaam ak papaam ak jànq papaam ñoom la fekki d'accord léegi daal kon li ñu mën a jàpp mooy ñi ko rey ci appartement bi ci li nga njort parce que li nga wax ne appartement bi dañ ko tëjoon waaw kon donc ku ñëw tijji appartement bi yor nga caabi yor nga caabi d'accord kon daal léegi li ñu la dégloo grosso modo yow daal li nga bëgg mooy enquête bi ñu ñu ko jëlaat ko nga xam ki rey sësër. voilà parce que euh, enquête bi depuis ñi ñu woowee ba ñu enquête ci troisième jour yooyu ba léegi may wax ak yow nii man maay jékkee-jékki dem police ba kenn woowu ma man maay toog ba mu yàgg sama xol mënatul ma paas dem police ba fexe ba gis ñu yor enquête bi ñu ne ma fii lañ ci toll walla fii toujours feeñagut def nañ li gisuñu nangam noonu lañ ko jàppoowee ak man waaw ba léegi dara feeñu moom bi mu lay woo daf la woo ne la fàllu na waxul la dañ ko rey non waxuma dañ ko rey daf ma woo ne ma ana nabu ma ne ko nabu de mi ngi nelaw yeewoogul loo may woowee sax laa ko wax parce que maa ngi moom neexoowuñu mu ne ma man kat dama ko woo ci suba ba léegi jotuma ko mais dama la doon yëgal rek ne la fàllu dafa gaañu ma ne ko fàllu dafa gaañu mooy lan mu ne ah fàllu daal gaañu ma ne ko fàllu bu gaañoo dafa wadd ci teraas bi mbaa oto fil ko waaye fàllu dégg naa ko barki démb donc fàllu feebarul ba fi mën a dee mu ne ma ah rey nañ ko deena daal dee na loolu la ma wax ba léegi tudd tudd rey ma ne la sama sœur boobu doon woote ñu ne ko dañ ko rey si foofu laa déggee si laa tëb nag fi taxu ne ko ray meen si la yaayam daanu foofu. léegi léegi bi ñu ko rayee ci kaw terrasse bi ci guddi la wala bëccëg la ak nu mu fee. Mm, papaam de nee fajar la moom loolu la wax ndax moom moo leen fa tëj ci biir appartement bi moom ñetti xale ñuy nelaw nee na moom mu dem deme ji course ndax dañ koo woo. ki ka rey dafa yor caabi ñëw ubbi appartement bi ñëw tànn fàll yóbbu ci kaw. jamat rendi kon kooku lu mu lu lu ñu prepare woon la ndax ñetti xale bu ñu tëddee waroo mën a ñëw jéggi ñépp jël ko ca gën a ndaw yóbbu waaw. léegi kan nee nañ magam moo ko gis. waa ñaari magam la tëddaloon. kenn ki moom moo ma bokk ndey ak baay. kenn ki moo ñoom ma bokk papa kenn ki moom moo ma bokk ndey ak baay mais ki mu bokkal ndey ak baay 6 ans la am ku mag ki 11 ans la am mooy taawu papaam waaw seen yaay nekku fa ñoom ñëpp ci seen nekkoon. am 6 ans moo ko gis. waaw ndax ki am 11 ans nee na moo ne ko dafa yeewu ne ko ana fàllu woo papaam mu ne ko fàllu bi may dem ci appartement bi laa leen tëjoon yéen ñëpp. waaw ah, mu ne ah papa Fallou de nekku fi nee na mu ne ko wër ko moom mu ubbi bunt bi wër ko mu ne ko wàccal ci suuf mu wàcc ci suuf wër xale bi ba sonn gisu ko nee na mu ne Amet kon yéegal ci kaw nga xool Fallou nee na bu mu yéegee ci kaw ci la gis Fallou ñu tëral ko ci ruq bi xale bu ndaw bu am 6 ans. tantam. moom avant loolu génnoon na kër gi. Ah, kon xale yi ak seen papa ñu dëkkoon. waaw bi dee bi di am. ñoo léegi daal dama bëggoon rek ñi nga xamee ne ñoom ñoo yor affaire enquête yi ci réew mi. Mhm. di autorité yi. Mhm. maa ngi leen di ñaan yàlla ñu dimbali ma ci lii may ñaan ndax sama xol la sax mhm. ndax deret dafa foor nit ku nekk mun ngaa bàyyi dara mais nu mu amee moo métti ba saa ne daf maa métti justement lii bërki démb xew gën a ñëw yeesalaat ko sama xol damay ñaan yàlla ñu dimbali ma àggalil ma sama enquête ma xam ci rey sama sët moom laa bëgg